aywa li si yéen kaay ñu doore ko ak kaa yi nekk ñaari kaa ñu bari di ko kaa muy kaawu Karim ak Khalifa Ababacar Sall loole nag ma ngay bëgg a neex seeni borom ubbil yéen kaay bi di l'observateur moo nga ñuy wax li jëm si am na si Khalifa ak Karim ministre bi yor wàllu justice liggéey na si ba noppi daal wax fi mën a jaar ba ñaam ñaar ñëpp am am na si ngir ñu mën a bokk ci élection présidentielle yi 2024 loole nag noppi nañ président a jotaal seen droit civil yi tax ñu mën a bokk si élection wax ne Macky moo des moom la mbir ñu wax si beneen cas moo di ñu bëri xëy di procès Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang Vox Populaire xëy si mu njëkk di wax ni avocat yi Sonko ñoo sàkk ñu dandale boobu la procès ndax ñoom avocat Sonko wax nañ rek ni njiital Pastef Ousmane Sonko jotul benn citation buy tax mu wuy ji moo tax boobu la layoo dàq nañ ko ba fukki fan juróom benn ci weeru février Walf Quotidien xëyee ak bal boobu la jamono nag moom Mame Mbaye Niang ak i avocat am ña naan ngelaw ca tribunal bu Ndakaaru ginnaaw loolu moom Mame Mbaye Niang journal bii de di wax rek lii dafay wane ni moom njiital Pastef Ousmane Sonko amul benn respect si institution réew mi fulaalu leen ba ci yéene kaay koy toppee faux et usage de faux coordonnateur national bu COJER nag di Moussa Sow di wax si le mandat ni njiital Pastef moom Ousmane Sonko booy wër ku dàq wax waxee leen sax nga lax ndiku ba tax nañu woote ab meeting bu mag di ab rassemblement foofee ca Pikine mu dara dëppoog dimanche juróomi fan ci weeru février bi ñu nekk foofee ca Pikine ñu wax si leneen ak beneen journal bii di Le Soleil moom jam la xëy ak ndaje mënu fa doon amal ngir seet nees lañ mën a def ba Afrique am xaalis bu mën a financer ay infrastructure am yéenekaay bi di ñu wax rek ci moom la ndaje sax la njiitu réew Macky jeexal coow li amoon ci train na coow lu ni mel di wax ne sa bopp ba ca loolu si rek ne àdduna bi dafa am ñoo xam ni wala sax si réewum Sénégal dafa am ñoo xam ni buñ jàkkaarloog weer wi dañuy lànk ni gisuñu ko jant lanu gis lu baax lu nu gis rek xëpp ci suuf bés bi la jour xëyee ak xëtam bu njëkk moom jiitu réew Macky Sall di dëggal coow li amoon si train express régional leeral ni boobu lay saxaar Sénégal moo ko moom dafa tànn entreprise bu xam a màcc si lu nu mer ngir mu leen saytul seen i saxaar direct news moom di ñu wax moom Amadou Ba ma ngi woon démb foofee ca Grand Théâtre bu Ndakaaru ñaari junniy jeunes yi tàggat leen ngir ñu war a liggéey foofee ca port bu Ndakaaru xew-xew moo fa amoon si teewaay premier ministre Amadou Ba quotidien moom guerre bi ak corruption la xëye si xëtam mu njëkk di wax ni impunité lu neex waaye def te dara du la fekk tax na ba Sénégal xeex bi muy xeex si wàllu guerre ak corruption di wéy di deltu ginnaaw ba tey si yéenekaay bi moom Mor Gassama di ab économiste nekk itam ab jàngalekat ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di dëggal lu ni ci xët bu njëkk bu sud du quotidien bay bayal bi ak lu neex waaye def moo tax ba Sénégal ku wàcc yoon ñu bañ laa benn bassin de rotation bu nekk ca zone de captage source a ni ñu commissaire Mballo ak i gaayam ñoo ngi xaar lan mooy tuppee ci autopsie ba ngir ñu am takk bu wér lan moo faat imam Thierno Tall jërë ngeen jëf ñu yendu jàmm